الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yi nga xam ni mënuñu koo peeg di seede ne moom dong mooy ci yeyoo ñu koy jaamu di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la mu yónni ci ñun moom rek it moo am droit ci jàngale ne nii la ñuy jaamoo yàlla ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sax ci loolu ba dee fekk leen ci ngeen góorgóorlu di wax wax ju jub kon yàlla dana yéwénal seeni jëf baal leen seeni bakkaar ki bëgg am texe àdduna ak texe alaxira yoon wa mooy na topp yàlla topp yeneen ci yàlla yàlla yàlla defal ñu ko ñu ngi sant suñu boroom mi ñi fekkeloo weeru koor gannaaw ba nekkee ay jamono di ko ko ñaan mu wërsëgal ñu ñu fekke ko yal nañu yombalal ñu taxewa ko nam ko bëggi te it yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko mbokk jullit li nga xam ne nii mooy weeru koor nekk na weer woo xam ni bu doon ci nii nit yi tey di dégg dañ naan mooy jamonoy bonus bu ko defee dana yey ñu fàttaliwaat jaami yàlla yi ay jaamu yoo xam ni nekkul sax lu jafe suñu borom yàlla teg ca fay yu rëy ngir jullit bañ a doon aji koo xam ni day sàggane weer wi jéem a profité ci léppam ci lépp lu mu xam ne lii kat da koy jegeel borom bi subhanahu wa taala te it xamal ni waxtu woo dund ci kaw suuf minute boo dund ci kaw suuf imma yaa ngi ci lu lay jegeel sa borom wala yaa ngi ci lu lay soril sa borom loolu moo tax ba suñu borom yàlla day subhanahu wa taala daf ñoo woo ne ay waay yéen ñi gëm jëkkante leen jëkkante leen ci lu leen di jural seen njëggulu borom jëkkante leen ci àjjana joo xam ne yaatuwaayam moo gën a yaatu asamaan yi ak suuf te loolu mooy nguur ga fay xaar julit ñi suñu borom yàlla subhanahu wa taala wëlbati ko tagg ay yeneen tam ak ñu baax ñu leen toppoon ne ñoom day dañu saxoon di jëkkante ci aw yiw ba raw ca ñeneen ñu dul ñoom ca na am ni ñu noonu amul benn yonent lu dul raw na ñoom doon woo ci jaamu yàlla rasul sallallahu alayhi wa sallam bokk na loo xam ne xam nañ ko nam daan woore kenn du ko woore nam daan naafila guddi kenn du ko naafila guddi nam daan sarxe kenn du ko sarxe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye mbokk saxaabaam yooyu bi yàlla wàccee ci ñoom aaya yi ñu gisit yonent bi alayhi salaam nam ko dunde ñoom day seen jëkkante moo nekkoon nu ñuy jëkkante rawante ci jaamu yàlla kenn daawul bëgg sa moroom raw la ci jaamu yàlla ca jàpp naa amul kenn ci yéen kudul mas naa dégg ne faqir ya day ñëw nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ñun day borom alal yi dañ ñoo raw ca xamuñu lu ñu leen di dale ndax bu dee jàkka jaa duñ leen fa jiitu bu dee jihaat duñ leen fi jiitu dàq ñu leen a jàng alquran waaye ñoom ñi ngi am alal di ko sarxe te ñun amuñu alal bi ñu sarxe rasul sallallahu alayhi wa sallam ne leen kaay ma wax leen nu ngeen di raway ña leen nu ngeen di dabe ña leen rawoon raw ñu leen ñu dul yéen su ngeen julleetee ba pare day leen wax subhanallah fanweer ak ñett alhamdulillah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett ngeen tëje ko laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shayin qadir lii de bu ngeen ko defee da ngeen raw ñeneen ñu dul yéen yàggul dara borom alal ya déggu ko di ko def fuqaraaw yi dellu si waat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat borom alal ya rawaat nañu ndax li ñuy def ñu ngi koy def yonent bi ne leen loolu ngëneelu yàlla la moo ko jox ku ko neex waaye mbokk gis ngeen fuqaraaw yi ñëw ñu ne yonent bi alayhi salaam ñaanal ñu yox ma alal waaye nu ñuy def ba am yoolu li borom alal yi am gis ngeen loolu kon moo tax ba ngallawaayi soo ma ni képp koo xam ni mi ngi nekk ak yow nga yëg ne raw na la ci alal xamal ne loolu de problème xam nga ko war a nekk sa problème yow julit sama dëkkandoo wala sama xame bi nga xam ne raw na ma ci jaamu yàlla naka lay def ko dab ko lii rek moo war a nekk problème mu julit ay yéen mbokk julit xam leen ne day wareef la ci julit heure boo demee ci xutba jumaa wala mu dégg ca place bu mu mën a doon bépp jëf boo xam ne jëf bii kat yàllaa ko yoonal ca moom nekk gu ca woon mu góorgóorlu keroog jéem koo commencé def loolee itamit xam leen ne laajul kattan gu yaatu lool bal suñu boroom ci lu néew da ngay gis ne dana ca yëkkati jullit ba ci lu kawe kii di abi hurayra nee na benn waay ñëw na ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ko yónni yàlla yónni ban sarax moo gën a màgg ci yàlla yonente bi alayhi salaam mu ne ko nga saraxe fekk yaa ngi soxla li nga saraxe yaa ngi ragal ak ñàkk dab la yaa ngi négatoon ak yokkute loolu mooy li gën a màgg ci sarax ca mbokk mi ngi noonu sarax da ngay saraxe mi ngi màggi ci fan la toll ci yow looloo tax yonente bi alayhi salaam doon ñu wax ni benn dërëm day dana raw téeméeri dërëm mbokk julit rasul sallallahu alayhi wasallam it daan ñu dénk ngalawaay gaaw leen gaaw leen jëkkanti ci aw yiw balaa sukuraat bi dab kenn muy wax la yàlla nettali rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarat yàlla nee na mu dundaat ngir def lu baax ci la ma bàyyi gannaaw iyéen mbokk julit bokk na ci jëkkante ci aw yiw mooy jëkkante ci biir yiw mooy tey jullee ngi nii julit ñépp ñu ngi jóg di julli waaye fexeel bokk ca ña nga xam ne ñoo raw mbokk julli bokkul ñaari nit daan daje ca jàkka ja seeni mbagg sësaloo fekk seen julli mi ngi mel ne asamaan ak suuf kon julli dañ caa war a jëkkante góorgóorlu ca lab ga góorgóorlu teel a jóg dem ca jàkka ja bul bàyyee kenn ah place bu jëkk ca la nga xamee ne nii mooy jàkka ja loolee da ngay gis ne ca ngënal yi gën a màgg la bokk góorgóorlul mbokk jurit waa ja nga xam ne mooy noddu moom day am na tuyaaba ju rëy waaye topp ko ca nodd googee ñaanal yonent bi alayhi salaam al wasila gannaaw ba nga julli ci moom ba nga kàbbaree di julli fexeel sa kemtalal kattan dóppe na ko ak julli yonent ba fexeel sa kemtalal kattan dóppe na ko ak toroxlu ba ak bàyyi sa xel sa julli ga moo taxoon yonent bi alayhi salaam dañu wax ni nit dina julli ba pare yàlla bindal ko dix sur dix nit julli ba pare yàlla bindal ko neuf trois deux am koo xam ne un la am am na koo xam ne sax moom amul dara ci julli ga loolee kon dañoo war a jëkkante jëm ci jaamu yàlla jëkkante ci biir jaamu yàlla gi tey jii da ngay gis ñun ñépp ñu ngi ci jumaa gi tey waaye rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na ka ñëwoon ca waxtu wu jëkk wa ku mel noonu mi ngi mel ni ku sarxa gileen borom xam-xam yi am nañ ci juuyoo ndax mooy fi jant bi fenke wala fi zawal jotee almuhim ñëw nga ci waxtu wu jëkk wa mel ni ngi sarxe giléem ka ca topp comme nag ka ca topp comme ko sarxe xar ka ca topp comme ko sarxe ginaar gannaaw ba comme ko sarxe am nen bu imaam ñëwee nag ñu tëj dossier bi waaye xoolal yéen a bokk julli juma mais ndax bi ngeen dindi bi yéen a bokk yool bokku leen yoon kon dañoo war a jëkkante jëm ci jaamu yàlla war a jëkkante ci biir jaamu yàlla googee yéen mbokk julit la gën a màgg ci jëkkante ci jaamu yàlla mooy sellal ga sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na maa gën a doyle képp ku ma booleel loolu tax jaamu yàlla gi nga ànd ak nit ñi di ko def gàll waay lu mu rëy rëy lu mu màgg mag xatta jihaad ci yoonu yàlla ba dee ca sax la ca am solo mooy yéene bu sell ne di nga koy def yàlla rek a tax bu loolu amul suñu borom yàlla soxlawul sa jëf waaye itamit mbokk julit nga fexe déppeeloo ko ak sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam jëkkante ci jaamu yàlla ci déppoowul ak sunna mooy li ëpp li doomu aadama yi def tey nga gis koo xam ne mi ngi jël alalam di dépenser des millions yu dul jeex di déplacer wu jëm des centaines de kilomètres di yëngatu kër kër yu guddeeg bëccëg ci loo xam ne dafa jàpp jaamu yàlla la te du ca am dara lu tax mooy dëppeeloo ko ak sunna kon jël benn fondement ci jëkkante ci lu baax mooy na sell ci yàlla tax nga dëppoo ak la nga xamee ni ni moom mooy sunna mbokk bokk na li gën a màgg ci loolu te nekk ca fondement mooy jëkkante ci jàngi xam-xam diine ji mooy diine xam-xam yoon bi dina àjjana mooy autoroute xam-xam ku bëgg dem àjjana ca jaarewoo ko ci xam-xam da ngay nax sa bopp looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ñu ñaax ay nit day du ñu daje mukk ci néegam yàlla la di jàng téerab yàlla bi nga xam ne mooy base suñu diine nga xam ne suñu yeneen bi moo koy firi di jàng téerab yàlla bi seen biir lu dul yàlla kontaan ci ñoom ba wàcc ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe yi ne fa moom loolu moo tax ba nañu góorgóorlu jàngi xam-xam dem ci jataay yi ñuy leerale téereb yàlla bi di ca leerale sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan suñu borom yàlla yàlla nañu yàlla boole nangul waaye da ngay gis ne ci weeru koor bi yëpp diggante tàkkusaan ah jëm boori six heures et demi ñi ngi fi leeral téereb yàlla bi subhanahu wa taala jigéen ñi jazahunna allahu xayra yàlla yàlla fayal ñoom it ñu ngi fi daje altine bu nekk ak ajjuma bu nekk di jàng seen diine di leeral téereb yàlla bi ci seen biir loolee mokk da ngay gis ne képp koo xam ne da ngaa dëkk ci gox yi amatuloo lay ci loolu waaye gannaaw loolu mokk loolee nga jël ca woote ca amul lenn loo xam ne gën naa nekk jëkkante ci yiw mooy li nga jàng ci diine nga jàngal ko keneen képp koo xam ne xamal nga ko ci diine loo xam ne xamu ko woon keroog ba mu ko commencé jëfe mboolem lu mu am ci tiyaaba yàlla bindal la ko moom ku mu jàngal mu commencé jëfe mboolem lu mu am yàlla bindal la ko ba ilaa yawmi diin ñu ngi noonu looloo tax gën a dara gunta nag woote jëme ci yoonu yàlla sa dëkkandoo bi daawul dem jàkka nga naxanteeg moom ba muy dem jàkka heure bu yëkkateetee ab jéego jëm ca jàkka ja tiyaaba bu mu am ñu bindal la ko képp koo xam ne nii daawul muuru nga fexe ba dugal ko ci muuraay tuyaaba jum ci am yàlla bindal na ko loolee kon mbokk xam ne ne mooy lu gën a màgg ci jëkkante bi nga xam ne doomu aadama yi da ci jëkkante moom la yonente bi alei salaam doon wax naan képp ko yoonal benn sunna ci ñoo xam ne xamuñu ko woon nga dekkal ci ñoom sunna yonente bi ba baa yowmal qiyaama loolee mi ngi nekk tuyaaba boo xam ne da lay fekk si ay yéen mbokk julit xam leen ne bokk na jëkkante ci aw yiw mooy def lu baax jëm ci jaami yàlla yi yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne daa sol dàllam taxaw ci aajo yi mbokk jullitam borom bi yàlla mi ngi taxaw ci ay aajoom képp koo xam ne nii dafa am mbokk jullit bu nekk ci jafe-jafe mu yombalal ko loolu nga doon bor bu mu ko yombalal la wala aaju bu mu ko yombalal la yàlla subhanahu wa taala dana ko yombalal adduna ak alaxira képp ku dimbali sa mbokk julit yàlla mi ngi taxaw julit dimbali adduna ak alaxira loolee mbokk yonent bi alayhi salaam ba mu koy wax ci nit ña yéemaliwu ko sax ci nit ña yonent bi mas naa ñaax sahaaba ya ba nga leen xam leen ne day benn jigéen bu saggan ci bani israil yàlla baal na ko tàbbal ko aljanna lan moo waraloon loolu mooy dafa gisoon benn xat bu mar bay waaja dee mu daal di jël ndox may ko mu naan loolee ca la ko yàlla jébbale tàbbal ko aljanna sahaaba yi ne ko ah yi mu yàlla yónni ñun li nga xam ne dañ koy def ci bàyyi may daa cam tuyaaba mu ne waaw képp koo xam ne mi nga am aw res di dund mbaax boo def jëm ci moom yàlla bindal la ko tuyaaba loolu it ñu war a góorgóorlu ci loolu ay yéen bokk julit xam leen ne bokk na ci loo xam ne nii luy jur ngërëmal borom bi di ñu jégal yàlla di yokk la nga xam ne mooy suñu tuyaaba mooy fexe ba jokk la nga xam ne nii mooy mbokk gi rasul sallallahu alayhi wa sallam gis nga nee na mbokk de yàlla nga ko jëlee ci turam bi rahman lool it suñu borom ne wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arham ragal leen yàlla mi ngeen di laajante ragal leen yàlla ci mbokk gi te loolu ñu ngi koy wax jëmele ko ci suñu ndaw ñi ñu ngi dund jamono boo xamee ne nii xamatuñu lan mooy mbokk li ñu xam mooy xarit ak intérêt waaye mbokk diine lislaam mooy diine topp mbokk diine rafetal jëm ci mbokk rasul sallallahu alayhi wasallam ni ku bëgg de yàlla yaatal wërsëgam barkeelal ko ko yàlla bàyyi tur wa rafet gannaawam ngal la waaye nay jokk la nga xam ne mooy ay mbokkam ay yéen bokk julit bokk na day loo xam ne dañ caa war a jëkkante mooy lii ngeen def tey bàyyi seeni kër ñëw ci nungum yàlla bi allahuma nag lu dul ngal la waay buñ ko yemele ci jumaa rek nii jumaa ji mel noonu la tàkkusaan waroon a mel noonu la gée waroon a mel te mooy képp koo xam ne dégg na nodd ngal la waay na ñëw julli si loolee ñam ci jublu góor ña bu dee jigéen ña yàlla farata lu ko ci ñoom doonte ne képp ku ko teewe am tuyaa ba ja góor ña am loole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni benn julli ba nga dem julli ca mbooloo ma day moo gën ñaar fukki julli ak juróom-ñaar yi nga julli woon sa kër loolee mbokk kon ca jëkkante yi gën a màgg ca la bokk bokk na ci mbokk la nga xam ne mooy jëkkante yooyee mooy doomu aadama baril di toog ci néegu yàlla ba rawatina la nga xamee ni nii mooy teel a dem jàkka di xaar julli rasul sallallahu alayhi wasallam nee na fii yaa ngi toog di xaar julli gi malaaka yaa ngi julli ci yow yàlla yàlla na nga ko jéggal yàlla yàlla na nga ko yërëm waaye bu doon da ngaa julli woon la nga xam ne mooy fajar ba pare toog ca jàkka ji di tudd yàlla ba jant ba fenk nga dem julli ñaari rakka rasul sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla dana la may yoonu aj ak umra boo xam ne dafa mat sëkk su dee loolu amul yaa ngi am liggéey booy dem di li nga fajar dem waaye ngal la waay góorgóorlu diggante ki jant bi fenke ba baa midi di jot na nga fexe sàcc sa bopp ak loo xam-xam fexe julli fa ñaari rakka yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na boolem articulation yi nekk ci doomu aadama mooy fi yax yi daje doomu aadama war na caa génneen ak sarax lépp lu baax rek sarax la waaye bokk na luy matal loolu lépp ñaari rakka yi nga julli ca yoor yoor loolee moo tax ku mel ne Abu Hurayra daan wax sama xarit ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénk na ma ñetti mbir du ma ko bàyyi lu dul xanaa ma dajeeg moom mooy nee na ma deel woor weer wu nekk ñetti fan nee na ma yoor yoor bu ne julli ca ñaari rakka nee na ma it naay wiitar bala may nalaw ca loolee ndax moom dam daan toppatoo xam-xam ay yéen bokk julit bokk na it la nga xam ne nii mooy luy nekk di jëkkante ci aw yiw mooy jàpp gi ngeen di jàpp rasul sallallahu alayhi wasallam nee na képp ko jàpp rafetal njàppam gannaaw bu mu ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu ci la gën a gàtt mi ngi noonu yàlla da nga nu ubbil juróom-ñetti buntu àjjana yi foo ci neex nga daal di fay duggee mu bokk nag mbokk loo xamee ne nii ñi ngi ci waxtoom mooy koor gi ngeen di kooro ngan la waay jëkkante leen ci biir koor bi ndax wóor na ma ne incha allah yéen a ngi woor waaye ci biir koor bi ñu ngi ciy jëkkante mooy fexe ba koor googee nga dunde la ko ak zikrullah di tudd yàlla di jéggul yàlla di julli ci yonent yàlla bari lool di ci jàng téereb yàlla bi muy alquran waaye jéem caa téye sa lammiñ sa kem sa leel kattan ci képp ku lay woo jëmale ci jëw ci wax lu bon ci képp koo xam ne indil na la ay histoire nga jéem koo fekk sa këmtalal kattan waaye gannaaw loolu mbokk jëkkante ci guddi weeru koor lu ngeen man ci taxawu ko ci ay naafila ngan la way ngeen def ko ci guddi gi lu ngeen mën ci zikrullah ngeen def ko waaye it ngal la waay jëkkante ci la ngeen yàlla wërsëgal ngeen jël ca jox ca ña ngeen tane la ci gën a màgg bokk na ca la nga xamee ne mooy ndogu ya ñuy joxe julit ña dem di ko ndogoo falilahi alhamdu la doon ci jàkk ji la am na mbokk yu bëri yi fi indi ay ndogu yal na yàlla nangu leen ci wuutal leen lu gën waaye na doon beneen jàkk la na doon danga koo jox say dëkkandoo wala say mbokk loo xam ni jubluwaay bi mooy wax leen ñu ndogoo ko mboolem seen yoonu koor yàlla subhanahu wa taala dina la koy bindal waaye gannaaw ndogu yooyu yëpp lépp loo mën ci joxe nga la way def ko rasul sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi nee nañu moom day moo gënoon a tabe ci lu ñu xam ci lu yàlla bind daan na tabe bi nag gën a yokku bu dee weeru koor dafa ñëw ba jibril jàng ak moom alquran dafa daan mel ne rek ngelaw lépp lu mu gis lu mën a joxe da koy joxe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii kon mbokk mooy la nga xamee ne nii ñi ngi koy fàttali seen bopp su sunu sunu bopp te it di leen ci fàttali ñu xam ni doomu aadama yi jëkkanti ci aw yiw dana ko jural mu dem tëdd bàmmeelam yiw woowee di continuer la gën a màgg ci loolu mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax doomu aadama bu dee dañuy arrêté ay dossier am ba mu des ci ñetti mbir sarax boo xam ne ma nga continuer di wéy la nga joxe woon ca jàkka ja daara ja teen ba ñu gasoon mbubb ma nga saraxe woon ila axiri lépp loo xam ne mi ngi dund sa gannaaw loolee da lay fekk sa bàmmeel bépp xam-xam boo jàngaloon doomu aadama mu koy jëfe sa gannaaw mi ngi lay fekk sa bàmmeel waaye mu bokk it la ci gën a màgg doom joo xam ne da nga koo teg ci yoonu mbaax dee bàyyi ko fi muy jaamu yàlla lu mu jaamu yàlla yàlla bindal la ko lu mu la ñaanal yàlla subhanahu wa taala dana ko nangu yii mbokk da ngay gis ne benn tënk bu ndaw la ci lu xutba bi attanoon ci loo xam ne dafa jëm ci aw yiw waaye buntu yiw yi yaatu na peeg na ku nekk ak la ca yàlla yombal ci moom lépp lu la yàlla yombal ci aw yiw ngal la waaye def ko ci weer wii nga xam ne weeru promotion la la nga ca mën a jur ci tuyaaba bu weer yi passé dootoo ko am yal na yàlla dépp lañu ak lépp loo xam ne dañu koy jegeel yal na yàlla soril ñu ci lépp loo xam ne dañuy yóbbu ci meram yal na yàlla may ñu kattan ñu taxawee jëf yi nga xam ne mooy jëf yu baax ya waaye may ñu kattan ñu mën a won gannaaw bépp jëf boo xam ne jëf bu xaram la yal na yàlla motti lu ñu weeru koor ci jàmm yal na yàlla wërsëgal ñu booleel ñu suñu xol yal na yàlla wàcce jàmm ci la nga xam ne mooy suñu réew yal na ko wàcce ci réew yi nga xam ne ñu ngi nekk ci fitna bokk na ci fële nga xam ne mooy Palestine fële nga xam ne mooy Centrafrique fële nga xam ne mooy Syrie ak feneen fu dul moom yoo xam ne jullit yi ña nga fay sonn yal na yàlla subhanahu wa taala woyofal coono boobee teggi ko ci gannaaw te yéeféer yi nga xam ne ñoo ko sabab yal na yàlla xëppaat loolu ci seen kaw yal na yàlla teete suñu ndaw ñi ila siratul mustaqim yal na yàlla defal ñu mujj ko rafet te ñun ñëpp mu dajale ñu ci àjjana yi gën a kawe allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ama yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin